te li ma mën mënatu ko ma di la ñaan nga ñaanal ma bés bi muy dee walla bés bi may dee nu bokk ko deeandoo mu ni ma ma dee bàyyi ko gannaaw fasuma ko yéene mu dee bàyyi ma gannaaw fasuma ko yéene kon nag ñaanal ma nu deeandoo ci benn fan te ki ma doon wax lii gisuma ku ko raw ci tugal te xaritu benn bakkanu sengoor la ma ni ko dafa am foo juume mu ni ma fan la ma ni ko tàgguwuloo sa jabar mu ni ma wax nga dëgg erreur bu rëy laa def mu nangu beneen yoon ba mu ni ma comme léegi dootuñu xuloo juboo nañu ma wax la ni nangu naa ni Muhammad c'est l'un des hommes les plus intelligents au monde waaye nag mënul nekk prophète parce que prophète yaa ngi yem ci ay Isa ma ni ko pour yow chrétien mu ne patt ba mu yàgg ni ma wax nga dëgg juumati na gan gi mu àndal ni ma mais man gëwma yàlla te moom mi ngi gëm yàlla te nu ngi xaritoo ma ne ko du ci dara ne ko nag du ci dara parce que gëm yàlla yàllaa koy def ci xolu nit ma ne ko def ko deful ci sa gëmuloo ko mu ne ah loolu parce que je suis philosophe bokk naan yëpp xam nañ ni tout noonu la ma ko waxee ni ma ñoom ñëpp laaj leen mu ni ma tout est dû au hasard ma ni ko mais le hasard c'est une épithète parmi tant d'autres ma ni ko hasard dàkkental la rek waaw ah. ma ko c'est une épithète de la volonté de Dieu ma la preuve si vous appelez le hasard ce n'est pas le hasard qui répond c'est la volonté de Dieu qui répond ñu continue noonu soow soow soow mu ni ma est-ce que alquran wax na ci dara ma ni ko waaw mu ni ma mën nga citer verset ba ma ni ko waaw mu ni ma ban la ma ni ko atadoona baax la atadoona baax la wa tadaruuna ahsana alxaliqin ma ni ko loolu la ma ni ko yàlla xam na ni am na ñoo xam ne asaaray seen yàlla waaye moo mu ngi leen di laaj moom yàlla ñi def hasard muy seen yàlla mu ngi leen di laaj naka la leen loolu dal parce que ñoom ñoo ëpp valeur hasard naka la nit di jaamoo lu mu ëpp valeur innakum wa ma taabudun min doonillah xam nga loolu tax nit ñi xàmmewuñu loolu gis nga ki féttéerlu di wone ne xam na ma moom guy gi lay jaamu yëgul ni guy gaa ngi koy rëbb yëgu ko ki féttéerlu ni mi ngi jaamu mbëtt mi mbëtt maa ngi koy rëbb ndax yàlla inspiré na mbëtt mi ak guy gi yépp ni seen nattu mooy ñu jaamu leen ni ko meeg ci koy ciy jaamu xamul loolu pour wax la ni yonent bi kenn daf ko mënul fay ndax léppam dafa leer te itam dara mënu ko féete kaw moom itam mu nangul yàlla ni alquran mësul gis lu mel noonu yonent bi dafay daanoo àll ndax alquran seetal loolu te dafa dafa nàmp wax wax daf ko nàmp yonent bi dafa nàmp wax ci famille bu nga xam ni kenn mësul yem ak ñoom ci wax yàlla dollil ko ci la mu ko dollil ba bu àddoo ñépp a koy xool moom yonent bi waaye moom it bu alxuraan wàccee dafay jaxle kuy waxe nii kana ñu xam ni kon nag am na fu mu jóge waaw loolu kenn mënul fexe indi argument bu tegu ci kawam loolu mënul nekk parce que maa ngi koy waxtaan ak sama benn sët médecin la fekk affaire anticorps yeeg pour ni buur bii defe rek fekk yaramu nit mu def ci ay anticorps mais en même temps mu permettre yeneen yi microbe ñu jaar feneen dugg ci biir muy seetaan xare boobu seetal loolu mu ni mase c'est paradoxal ma ni ko justement il aime les parce qu'il est Dieu le créateur mais il est Dieu le roi aussi loolu moo tax moom ku ko nangulul paradoxe yooyu du jubóog yow du jubóog yow ba tax na moom ku yomba jubóol la waaw te ku yomba def xarit la mais ci kaw nga dal ci kaw nga dal wa salli alayhim inna salawatika sakanun lahum ci kaw nga dal euh, cheikh mbiram dafa dafa dafa yéeme ndax dafa doon gan fa mu nekkoon te itam agam àggul fen waaye révolution yi mu def ci àdduna bi kenn mësu ko def ci àdduna ndax bi ñu nee circule awliya automatiquement dañu def délégation pour seet ko pour proposer ko mu nekk xaatim bi mu bañ yonent bu moom kenn proposé wu ko dañ ko ko forcé pour mu nekk xaatimul ambiya mais cheikh dañ ko ko proposé ba xam dina nangu nekk xaatimul awliya wala du ko nangu mu bañ mës nga gis ko am fitu ñu di la proposer xatmiya nga di ko bañ mais pas-pasam àgg na ca ak xàmmeem mu bañ ko mu bañ ko ñu ni ko lu tax nga bañ ko mu ni risque yi li ci nekk ci risque moo tax duma ko nangu ñu dem ceeg moom dem ceeg moom ba nga xam ni cofeel rekk mën na lu nekk mu su koy accepté bi mu ko accepté mu joxe ñaari charte charte bu jëkk bi mu ni nañ ko sécuriser environnement ah. ñu ni kooku mën na nekk parce que cosaan laa ngi ci alquran laa xawfun alayhim wala hum yaxzanun kooku yomb na ñu ni ko bi ci des mu ni ngeen fexe ba sanction bi ñuy tuddee màq yàlla di ko teg waliyu mag mu bañ ma ko teg sanction la bu nga xam ni yàlla waliyu mag la koy teg ak système bu bew système bu nga xam ni léppam ci matérialisme la ko teg ñi ñaar la ko dencal kooku ñoom mënu mënuñu ci joxe garanti ba yonent bi benn yoon rekk li ci gis moo di mu nangu moom itam parce que mujj na nangu yonent bi waaye nag cheikh xam na ndax nangu yonent bi ci catu tuñ dafay wone ni am na chart moo tax mu laaj ko chart bi mu ni ko chart bi mooy nga compter ak ñi ñuy tudde alxaasa maanaam booy wut taalibe taalibe ba na tudd Alaaji Omar booy wut taalibe taalibe ba na tudd Haj booy wut booy wut taalibe taalibe ba na tudd Cheikh Sukayrij booy wut taalibe taalibe ba na tudd Ali Tamasini booy wut taalibe taalibe ba na tudd Ali Harazim booy wut taalibe taalibe ba na tudd Ibrahim Rayaaxi booy wut taalibe taalibe ba na tudd ma kala booy wut taalibe taalibe ba na tudd Alxaaji Ibrahim Ñas wala papaam booy wut taalibe waaw koo ni taalibe yi nga am kenn ku ci ne mën na not kontina seetal loolu ñu ni ko lool rek moo la mën a sowe màq du tegu ci sa kaw waaye amul benn waliyu bu nga xam ni mën na rëcc màq maanaam day taal yal nañ ci yàlla musal ni muy tegoo ci système gaañ ko noonu lay tegoo ci waliyu gaañ ko parce que sanction yi ñuy teg waliyu ñett rek la. mahq ak tard ak xidlaan te ñu koy prononcé ca xayb mahq ak tard ak xidlaan mahq wala yu mat sëkk lañ koy teg te dañ koy jële ci wujud delloo ko Adam mara day tali c'est tellement humiliant ba moo tax Cheikh bañ ni du ko jël ndax dañ lay jële ci wujud delloo la ci Adam c'est le retour au néant c'est fini kiñ ko teg boo demee ci registre bi nit ñiy demee safara doo ca gis turam boo demee ci registre bi nit ñiy demee àjjana doo ca gis turam boo demee ci registre bi ci diggante bi dootoo ci gis turam ndax far nañ ko abadan te mën na am tegu ko boppam waaye borom gémmiñ guree ko ko teg parce que yàlla paaka la kenn du ko jëkk ci mberam boo mayee sa sëriñ ci sa làmmiñ lu mu ko mayul du la sacrifier yow sëriñ ba lay sacrifier waaw lay def moo tudd mbaax dañ ko ragal ñoom ba mu ëpp tarde nag wali yu xeex ak borom jamono lañ koy teg wali yu bu xeexeeg borom jamono kenn dootu ko informé te buñ ko informé wul dootul fekke seen prestation yi te bu ko fekke fekkeetul moo koy taxawaaloo yam loolu moo ci nekk xëwelaan nag moom moo ci gën a doy waar moom presque du du sanction mesure administrative rek la waa xay boo koy def mooy ni yàllay def rek fekk ko xel ma matul mu may ko wilaaye seetal loolu li bukki di wax ni xamul sedd séddale ne yàlla xamul sedd leen seetal fekk koo xam ne xel ma demewul noonu mu may ko wilaaye xam nga kooku bu ñuy jëlul mesure yu ñu ko sàmme ba tere ko mu wax ci mbooloo tere ko mu jëf ci mbooloo àdduna dafay tukki seetal loolu moom lañu ñu tudd xidlaan ñetti sanction yi ñoo fa am mahq ak tard ak xidlaan waaw yal nañ ci yàlla musal mahq moom ku ñu ko teg c'est fini c'est fini moo tax cheikh doon ko ndaw waaye nag bu ko bëggee rëcc nag dafay konte ci alxassa ndax mag ñi dañu mën a jàpp seen bopp waaw moo tax boo jëkkee ci mag ñi rekk mën nga rëcc waaye boo jëkkee ci mbooloo kese kese kese rek ñu gaañ la parce que dañu lay jox cër bu la yàlla joxul te yàlla paaka la kenn du ko jëkk ci mbaram mukk te lum la waxul boo ko ko sosalee fa la lay bàyyi sanctionner sa kilifa seetal loolu seetal loolu lu mat a bàyyi xel pard nag mooy wali yu waxeex ak borom jamono boobu noon rek la moom it dafay dafay jël mesure demander pour ñu bañ koo informer te lu jóge xayb te ñoom seen bànneex yépp mooy seen contact ak xayb seetal loolu seetal loolu kon tàggu shahada ak xayb dafa jar lu nekk kon nag bul nangu ku la ko tere mukk mukk mag ñi dañ ci sonn yonent bi sonn ci yàlla sonn ci yàlla bañ na ko ba wax ni siddit gi yëngu ci seen xol maa ku gën a jege ci yéen kon nag nangu leen xayb ah kon nangu leen xëy bi wante ñun ñu ngi defe nit nii rek kese kese kese kese kese déedéet seetal lu tuuti loo xam ni bu ma la ko waxee léegi nga reetaan te importance am ëpp na dama am tante buy jàngale alquran ca ndar man sama tante yëpp daan jàngale alxuraan ndax kër ca ndar sama tante kantu moo fa indi tariqa qadiriya sama maam astukan mi ñu jur mi ñu moo fi indi tariqa kër looloo fa ne moo tax sama tante kantum daf daan tux parce que tariqam terewu ko ko te comme goro la ci sëñ Babacar bu dee ñëw Tiwaawan sëñ Babacar dafay jënd lu pon pour gardel ko ko te dafay wax ni nañ ko jëndal pon mu xees waaw ne ndax nee ñu moo dàq seetal te cheikh moom sama turandoo nanguwul pon te mi ngi ko jële ci wadi li mi yax moom ci la ko jële ndax ba ñu daggee xob ca garab ga indi ko ci kaw suuf di seet bu mu bokkal ndey ak baay bi ñu ñëwee ci pon lañu gis ni moo xob bu ñu jële ci yax moom benn la